والأمم بكنقياد الصالحين بالزمام لك لدى رب الورى كل مرام لك بي يا سيدي أصنع احترام جادلنا باق تعالى عدمنا بك فأنت سيدي خير أنا نويت شكر عليك كلا وكل شيء والكتاب ندام نويت شكره عليك بقلام وخيرها يا سجوامي الكلام هديتي خذ كرما بلا انسرام يا خايدا لي من إلهك المرام تبت لربي ظائرا بذنب ذنب لك وقبله عبوت بيزام تبت لربي ظائرا لك وقبل وابوت بيزام تبت لربي صايرا بذا النظام لك وقبل ابوت بيزام وانك لعلى خلق عظيم وانك لعلى خلق عظيم يا رسول الله يا حبيب الله yaa xayri xalqillaahi imaam albaraaya ku sopp sayyiduna muhammad wa innaka la ala xuluqin adiimin wa innaka la ala xuluqin adiimin waju nabiyal muntaxal muniiru yuniiru xalba kulli mustaniiru axmaduna al muxtaari laa yubaho عند الذي بالبرايا باها نبينا الأحمد نور الرسل عليهم أزكى الصلاة المرسل نبينا الأحمد نور الأنبياء عليهم أزكى السلام من ربيا كتاب أحمد سواه نسى وإنه بخير لن ينسى للمنتقى للمنتقى lil muntaqa lil muntaqa ana ñu bëgg sayyiduna muhammad lil muntaqa alladi taqaddamu sabaq zikrul hakim min iblis labaq alayhi salla bi salamin sarmada fi l ali wal ashabi wa kulli hamida lil mustawa للمصطفى للمصطفى لدى الإله الواحد نور ينير قلب غير جاحد ألا يسكن أكد في كوني soxna Bali mu toog di soxna Bali yàlla na fi yàgg ci wér. soxna Maymuna di soxna Maymuna woote laylatul xadar gi woote laylatul xadar gi. nga nga jóge Fuuta. nga jóge Fuuta. ak say coona. ak say coona. ak tàngaay wi. ak tàngaay wi. na bala maa taxaw. ni bala ma taxaw. damaa gis soxnaas. damaa gis soxna loolu rëy na ci moom loolu rëy na ci moom lool. waaye nag ñëw nga foo xam ne. waaye nag ñëw nga foo xam ni. fii nga ñëw. fii nga ñëw. da nga fee dëkk. dang nga fee dëkk. Serigne Touba. Serigne Touba. ñaari maamam yëpp. ñaari maamam yëpp. Fuuta lañ bàyyi ko woon Fuuta lañu bàyyi ko woon. kee nga jóge kee nga kee nga jóge Golare. kee ma nga jóge Golare. kee nga jóge Jolof. kee ma nga jóge Jolof. kon mënu génn ci genn wet kon mënu laa génn ci genn wet kon yéen a bokk lépp kon yéen yéen a bokk lépp ngeen bokkaat di diin diine ji ngeen bokkaat nag diine ji bokk réew mi bokk réew mi ba nag bokk di génération ba ba pare nag bokk génération bi ngeen bokkee génération ba bi ngeen bokkee génération nag ba noppi mënoon ngeen a bañ a bokk ay objectif mënoon ngeen a bañ a bokk nag ay objectif ba noppi nag ngeen bokk ko ba noppi nag ngeen bokk ko yàlla boole leen yàlla boole leen nga jàpp ko nga jàpp ko jàpp gu wér jàpp gu wér xam ne goo xam ne ko xam soxna ku xam soxnaas. dana xam ne jàpp nga ko. dana xam ne jàpp nga ko. waaye soxnaas su nag jàpp na la. waaye soxnaas su nag jàpp na la. daa am lu mu nuru maamam. te dafa am nag lu mu nuru maamam. Serigne Touba daana wax ne. Serigne Touba daana wax ne. boo dikkee ni ma jàpp naa la. boo dikkee ni ma jàpp naa la. duma la gaaw a jàpp de du la gaaw a jàpp de ndax nit day jàpp ndax nit day jàpp ba yàgg mu bàyyi ba mu yàgg mu bàyyi dama lay seetaan dama lay seetaan boo dëgëree sag jàpp boo dëgëree rek sag jàpp ba ma jàpp ba ma jàpp boo bàyyee yow boo bàyyee yow man dootuma bàyyi man dootuma bàyyi soxna asu noonu noonu soxna asu nee na nag noonu yi rek la mel moom noonu la la téye noonu la la ndax réew mi ndax réew mi bari na lu fiy xew bari na lu fiy xew bari na ñu fi am ay tur bari na ñu fi am ay bari na ñu jaar bari na ñu fiy jaar waa yow day waaye yow day li image waneegun li image waneegun réew mi di ko nettali réew mi di ko nettali Rousseau jaar ci menn mbedd Rousseau jaar ci menn mbedd Rousseau dem ci genn kër Rousseau dem ci genn kër Rousseau dem ci benn tarixa Rousseau Rousseau dem ci benn tarixa Rousseau dem ci jenn daara Rousseau dem ci jenn daara kon nag loolu kon loolu jikko la jikko la yoo xam ne yoo xam ni tedd ngay jikkoo tedd ngay jikkoo rasulillahi lañ ko tagge rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam lan ko tagge woon dañu wax ne léegi nii léegi nii daa am ku sëgg na ko daa am ku sëgg ni ko presse ba daa bari ca kaw press ba dafa bari ca kaw ndax danañ fa xaj ndax danañ fa xaj mu ne sama digg moom mu ne sama digg moom na na na na na na na na télévision yëpp ñëw. na télévision yëpp ñëw. na rajo yëpp ñëw na rajo yëpp ñëw. ndax nëbb ma ko kenn. ndax nëbb ma ko kuy Sodia Kébér. moo ma jàpp moo ma jàpp. ma jàpp ko ma jàpp ko. nañ wane loolu. nan wane loolu. loolu bañu ma kenn ko loolu kenn ko ko wane. Serigne Touba daa am ku ñëw ne ko. Serigne Touba daa am ku ñëw ni ko. renseignement généraux yi. renseignement généraux yi. ñi ngi ci biir kër gi ngi ci biir kër gi fees fi del. mu ne nan nettali lañ gis. mu ne nan nettali rek lan gis. ndax nëbb ma ko yàlla ndax man nëbb ma ko yàlla. loolee la la soxna yitteem yëpp mooy Seydina Muhammad mu bëgg ko di ko liggéeyal mbëggeel goo xam ni addina bi yëpp xam ni yonent bi rek la bëgg waaye tarixa ci réew mi moom amu ci frontière yàggul barki dem li ko Cheikh Abdoul Karim mu Cheikh Mouhamadul Fadal seede ci digg àddina média yëpp jël ko la mu ko wax daf ko yow coobare yàlla sëñ Mahi Niass mi nga xam ni mooy xalifab seexal islam baay daf ni ko seexal saan foo toog di yëkkati kaddu sa kaddu addina bi yëpp war nañ ko dégg ñi ko fekk woon yëpp ñu ngi taxaw amul frontière ci këru diine yi ndax fu ci tabbi rek ñu ubbil ko li ko ko may muy jikkoom moo tax li soxna ci nit fu ni falaa laa jëm si xaaral lu mu guddi guddi dana yegg si lu mu nar itam du ko def ndax moom xam na li mu doon waaye bis bi daa foor lool ci moom bi muy ñëw Cheikh Malick a ngi nii la Mamor Jaara borom saam seede woon ca Serigne Touba wax wax ju rëy jooju nga xam ni yàlla mooy dogal lu ko neex ci la gëm ni Serigne Touba moom coobareb yàlla la kon moom Touba gi dafa am cër boo xam ni kër gu mu dugg wala mu ñu ubbil ko ngir jikkoom ak mbaaxam waaye Serigne Fallou ñu ñaanal saa su Seex Muntaxaay wax ba def déclaration bi nga wax ko àdduna bi yëpp ci bég nii nga mel nga musa mel ci mbax ci yiw ci bëgg Serigne tubaa ci jeex ci Serigne tubaa waaye sa turandoo ko doon ndax sëñ Fallou daf ne woon maay senegal ñu ne ko Mbàkke ko doonee mu ni drapeau bi ñaata couleur la ñu ne ko ñett vert zone rouge am na étoile ci digg bi sëñ fal ni weer du ma weer kenn zone du ma sonal kenn waaye rouge du ma rusloo kenn ñu ne ko des na étoile mu ni ñaata juróomi kan maa tabax jumaa ji def juróomi sorol jël ba ca gën a gudd tuddee Cheikh Ibrahima Fall may Sénégal kooku sëñ Fallou sa turandoo moo tax keroog bi nga xamee ni Cheikh Alassane dem na ci sëñ Abibou mi yor tey Touba ca kanam mu dugg ak moom ñoom Cheikh Malick a ngi nii toog keroog bi seex bi di waxtaan ci sëñ Touba ba dugg ci Assirou dugg ca sëñ Touba Gabon keroog Cheikh bu daan laalu dugg ci biir lu téere mu génne ko jox kon loolu faaw ñu leeral lii rek la ñu woon nañu ko wax ndax janax dañ ni ko nu kanamu muus mel nu jotu koo xam ne nag fi ñuy daje daqat te ba lay sa bég nañu lool kon on doon la parole à notre cheikh Cheikh Alassane Sène taara yàlla bëgg yonent bi alayhi salaam di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di am mbégte mu di am mbégte mu rëy di ñëw gii mu ñëw ci kër gi duñu ni guleet duñu ni guleet ndax fii miin nañu ndax fii miin nañu ko santaat yàlla bu baax di nuyu soxna Astu yóbbaale. nuyu bi nag day yóbbaale. honorable député Aminata Diallo. honorable député Aminata Diallo. moom mi ma tàbbaloon ci kër gi. moom mi ma tàbbaloon ci kër gi. di nuyu nag soxna ki ne Thion mu baax mii di wax lu baax di ko def. ndax moom. lu baax lu ne. lu baax lu ne. ko yéene seex bi. lu mu gis lu rafet lu ne. yaakaar ni seex bi moo ci jekk. lu mu gis lu baax ci wax mu yet ñu ko loolu yi nag moo tax ñu am mbégte lool ci daje ak moom fii nag wax na dëgg nag surul woon fii ma ñëw fu may dem ñooy ànd ndax xelam mu sell macha allah bi nekk ci moom. bis bi nag màgg na màggaay boo xamante ne. bis bii nag màgg na màggaay goo xamante ni si. li mu làmboo daa bari lool. li mu làmboo dafa bari lool. alxuraan karim bu wàcc ci yonent bi alayhi salaatu wa ci la wàcc ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. waajuram wu tedd. waajuram wu tedd. soxna Baali. soxna Baali. jëlee ndigal gi. jëlee ndigal li. ci waajuram wu tedd. ci waajuram wu tedd. daan ko doxal. daan ko doxal. ba tey mu agsi ci loxoom. ba tey ji mu agsi ci loxoom yàlla na yàgg. sëñ Fallou wax rek. lii sëriñ Fallou wax rek mooy dëgg. nee na bokki génération. nee na bokki génération. ñu ànd bokk doxal. faaw ñu ànd bokk doxal. loolu. loolu. wax ju rëy la. daf may gën a gën a ñaax. daf may gën a ñaax. ci sama diggante ak ci sama diggante nag ak moom. mi ngi bëgg yàgg nag. mi ngi bëgg a yàgg nag. li ma gën a jàpp ci moom. li ma gën a jàpp ci moom nag. mooy yar bi. ak teggin yi. ak euh, ak bari gi sutura lu bari ci réew mi jaga dina woon su ma agsee ci waajuram ñu waxtaane ko moom daan na ci def ay pexe ba yooyu sedd guy yu ci bari nag ci réew mi mooy tax yenn saa yi léeg-léeg ma seen nit wax dara ci télé bi ni lii ba mu amee maa dox maa kii seexal san nee na day ree damay ree rek ndax xam naa fi mu bàyyi koo ca ba mu fay bàyyi koo man la moom la waajuram wu tedd wi ak Aminata Diallo mais kiimaanu yàlla la soxna Astou ñi ngi lay sant bu baax bak ci dalal gi di feddali kóllëre gi sunu diggante daan nañu ko doxal waaye fi mu toll nii dañoo jël engagement gën ko doxal su daan daagu ci waaxu la jëm su waaxoo ci xel la jëm incha allah ndax sa taxawaay ak yii nga xamante ni mooy ay mission yu ne ci sa kanam nga war koo doxal war ko doxal nag ak sellaange ndax noonu yi nga mel lii ma gën a neex ci moom nag daa mën a téye kóllëre ca démb ak tey ak ëllëg na mu koy doxale benn la du soppeeku ji te loolu am na solo ci nit maa ngi sant yàlla nag ci daje bii ñu daje du ñu ko guddal fedd lente kóllëre la woon gisee saafonte santaat yàlla ci daje fi nag ak say mbokk ñëw ci kër gu tedd gi nga xam ne lu fi nit ñaan yàlla nangu ko ndax ni ngeen téeñe bis bu tedd bii nga xamante ni yenn saa yi sëriñ bi seex bi dégg borom xam-xam bu mag daal di wax ne yonent bi sallallahu alayhi wa bi ko jibril ne iqra yonent bi daf ko wax ni ko mënumaa jàng te waxu ko loolu maa ana bi xaari bi mu ko wax maa ana bi xaari bi mu ko wax mooy bokkuma ci ñi war a jàng loolu nag day ubbi buntu wane ni moom mooy ki ñu war a jàllale suuratu rahman moo ko wane mooy wane ni laataa jibril di ñëw ci moom laataa jibril di ñëw ci moom yonent bi alxuraan ju fees dell la yonent bi alxuraan ju fees woon parce que yàlla boroom xel yi rek lay wax la arrahman la wax allama alxuraan xalaxal insaan ñett yi nag soo ko xoolee dafa wax ni moom yàlla ci yërmandeem ju màgg ji jàngale na alxuraan jàngale na alxuraan kan la ko jàngal ngën ngi mbindeef lan la ci jublu ngir yonent bi nekk témoin jamono bi muy sàkk doomu aadama loolu mooy bis bi yàlla nanu ci suñu borom fajal suñu aajo yëpp lii soxna ki ne wax rek la ñuy wax yal nañ ko ànd ak moom moom soxna Astou ay at yu bare bare bare bari di ko màggalandoo te sëriñ bi sunu xel dal na ci jataay bi ndax moom mii kat soxna ki ne wax na ko sëriñ Fallu wax na ko amul ku ko respecté wut ci yoon wi toogaayam bii mu toog du fépp déedéet moo tax ma ne sunu xel gën naa dal jikko nag tax na ñoom ñaar ñii ànd bi am ndax am na yeneen i mbokk nag dana saafonte ak ñoom ndax moom nitu jàmm la waaye lii mu def nii ni mu koy defal fii ci Touba ñu néew lañu moo tax ñu dollee amaat mbégte ci lii ñu fekke sant nañu nag bu baax ñaan yàlla di ñaan yàlla suñu jéego yi suñu jéego yi yàlla nekk suñu fajuk aajo fan yii yëpp nag fan yii yëpp nag may informé soxna as may informé soxna as bari naa tànk Touba lool bari naa tànk Touba lool weekend bu ne weekend bu ne maa fi maa ngi fi am na juróom ben weer am na juróom benn weer li ko waral li ko waral du duma ko junjogun fii waaye danaa ci waxtaan ak moom incha allahu taala ca sun ci waxtaanee li ma ci bëgg su toqee ci noppam yàlla mën nañu cee defal ndimbal ci barke yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam ci barkeb Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasul dama wax benn nit ma ne li ma soxla ci réew mi kenn rek moo am générosité jox ma ko. kenn rek moo am générosité jox ma ko. muy Cheikh Ahmadou Bamba. loolu nag kii maan la sama digganteeg moom. maa ngi koy topp nag. maa ngi koy topp nag. moo tax weekend bu jot. da nga ko am de moo tax weekend bu jot. ma ñëw moom xam na jéego yi may moom xam na jéego yi. maa ngi sant yàlla maa ngi sant yàlla di nuyu ñëpp. asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatu. القبور والأمام بتنقياد الصالحين بالزمام لك لدى رب الورى كل مرام لك بي يا سيدي أصنع احترام جاد لنا باق تعالى عدمنا بك فأنت سيدي خير أنا نويت شكر عليك كلام wa kulli shay'in wal kitaabi nidaa kon Cheikh Abdou Lahad cheikh bi daal bi mu ñëwee tab bi xam na ni bisub laylatul xadri bii ah soxna may am na ci cër bu rëy bi mu ci am nag tey loolu ci seen loxo la nekk ngeen koy doxal nag doxal bi rafet lool waaye bi mu ñëwee nag fekk fi sëñ xalil mi toog bu cheikh Modou Muxtaar nga xam ni dégg nga dégg nga Cheikh Abdou nee lépp kii bàyyam ak bàyyi seex bi yàgg na lool cinquante ta muy ànd bu yàgg waaye sëriñ koso mu seex taxa nga xam ni keroog bi muy ñëw ca ngan gu rëy ga loolu lépp ñoo nga fa teew muy taw seex Muntaxa waaye sëriñ Fallu mu sëñ Mbàkki Soxna Lo mu sëriñ seex Gaynde fat moom it toog nii jotaay bi ala lool waaye bis bu bis boo gis rek na bis bay mel ah borom bis ba toll noonu Cheikh Abdou yow tey ku ne dana ñëw fekk la fa waaye Cheikh Alassane nag digganteem ak soxna Bali bu soxna ma yàgg na lool du tey kóllëre googu nag moom lay doxal waaye xam ngeen ni cheikh bi ah génn génnam daa bari lool waaye biir Touba amu fi frontière Touba gii kër gu mu dugg barki dem rek la ko Cheikh Abdoul Karim mu sëñ Fallu na sëkk nee na ko yow coobare yàlla loolu nag bi mu wax ñu ñëpp ñu ngi toog daan ñu ko nag tab gi nga tabe mooma yéem kon daal cheikh bi ñu ngi ñaan ci daraja yonent bi alayhi salaatu wasalaam ànd bi yàgg lool du yàgg nag ndax sëriñ bi daa mi gan te daa war a saafonteeg mbokk bi ah waa kon jeex na ne ne sëñ moo daal mu ngi koy soñ waaw <laughs> waaye sëñ bi xam nga Fuuta ah waaw te te te fi ne ni wër bi day na waaw waaw te te koor la nekk mag la ah, eh. eh, waaw waaw الرسول والأمام بتنقياد الصالحين بالزمام لك لدى رب الورى كل لك بي يا سيدي أصنع احترام جدلنا باق تعالى عدمنا بك فأنت سيدي خير أنا نويت شكر عليك كلا وكل شيء والكتاب ندام نويت شكر عليك بقلام